dafa war a dem vers des élections inclusives xam nga élection inclusive mooy lan may mun a doomu réew mi dëkk ci réew mi am ay yéene ci réew mi am ay projet ci réew mi yaakaar ni ñoom am nañ lu ñu mën a indil Sénégal ñu bàyyi askanu Sénégal atte man dama bokk ci ñi ne Ousmane Sonko dafa war a bokk xam nga lu tax maa ngi la ko doon wax léegi. Mm. oui am na ñoo xam ni peut-être Ousmane ko bokk arrangé wu leen man bokkuma ci ñooñ xam nga lu tax dafa am ñaari politicien maa ngi la ko doon wax sànq mooy ñi nga xam dañu am jikko tan am nga tan moom lu muy dunde mooy médd paresse charognard ak ñi nga xam dañu am jikko gaynde gaynde li muy dunde moom moo koy fàddal boppam moom moo koy fàggul boppam soo bëggee nekk roi des arènes doo lijjanti ndax Modou Lo mi ngi ci làmb ji wala Balla Gaye mi ngi ci làmb ji yow li la war mooy entraînement ba képp koo dajal ci arène boobu nga wan ko sa doole kon ñun candidature Ousmane Sonko génne wuñu ci boppam ca dañ ko war a nangul mu bokk kenn rek moo mën a àtte askanu Sénégal rawatina rawatina may mun a nag ak te loo ci mënti dégg nag dañu instrumentaliser la justice pour écarté ko waaw ah, loo ci mënti dégg. instrumentaliser mais mais xam nga am na loo xam ne c'est di politiquement correct bari na des hommes politiques de l'opposition yooyu waxal ñu ne la waaye Ousmane Sonko dafa war a bokk bu caméra yi tàkkee <laughs> mais du lu ñu gëm parce que Ousmane Sonko bu bokkee doo leen laal. man en loolu te loolu xam ngeen ko. en quoi man bu bokkee. Euh, de kii bi yelwaan bi yëpp lay këpp. Maymuna. waaw ah, aujourd'hui non dans le contexte actuel xaw ma lan mooy am fii ak euh, décembre janvier mais dans le contexte actuel s'il y a une élection présidentielle et si Macky Sall choisit un bon candidat de Benno il y peut-être un deuxième tour mais ñii génn c'est sera peut-être Ousmane Sonko ak le candidat de Benno man may mun a. nan donc dafay dafay compromettre seen oh, seen chance moo tax ñu bari ah, ñu ngi wax nii rek waaye bëgguñu Ousmane Sonko ah, bokk ci ci ci élection mënumaa wax ci turu ñi ci des. vous êtes sûr que bëgg nga mu bokk. man mënumaa wax ci turu ñi ci des. ma ne vous êtes sûr que bëgg nga mu bokk. je dis que ni man mënumaa wax. ci turu ñi ci des ma ne est-ce que yow tu es sûr que est-ce que tu souhaites que Ousmane Sonko bokk soo dégloo rek. donc c'est un adversaire vous êtes dans une compétition. déglul ma wax la dama ni man candidature Ousmane Sonko gêné wu ma ascension politique Ousmane Sonko gêné wu ma Ousmane Sonko moom moo mag ci ay at foofu rawatina ñi nga mu gêné mooy ñi nga xam dañ naan bii bu baaxul bu Ousmane Sonko jàlloon au moins dina éliminer benn génération boo xamante ni dina am renouvellement de la classe politique nous on le temps de bâtir. noonu nga ko gisee. non waxuma noonu laa ko gisee dama ni gêné